asalaamaaleykum Tata Ngoné ñu ngi lay nuyu. maa leen di fay. mbaa yaa ngi am jàmm. waaw jàmm ju mat sëkk. alors moment bii nii il paraît lépp lépp pare na. lan ngeen dénk Pape Diouf. de prestation bu am doole. loolu rek lañ ko sant loolu rek lañ ko toj fi ñëw toj fi ñëw toj fi. ñëw toj fi alors méga enjoy ñu yàggoon a gis euh, grand bégué pourquoi le choix méga enjoy. parce que grand bége def ko fu nekk yóbbu nañ ko fu nekk léegi il ñu changer moo tax ñu di méga enjoy. alors Pape ñu gis ko ay artistes am wuy ñu nekk prestar ak lu waral choix boobu. ah mais Pape Diouf léegi pour man Pape Diouf bu Sénégal ñëpp ko bëgg baax yaru am na talent loolu moo am solo loolu am lii. alors lan la ñu tasaangoone mën a wax ci soi li gars di wax concernant Tatou Touche bi tey moom ak confrère am rien à dire sur ça y a rien à dire. ajaba tey duñu forcé alors lan lañ mën a xaar tey kon ci spectacle. yéen a ngi fi ah. waaw di ngeen gis loo leen musul gis. kon jeex na voilà jeex na